أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi ànd ak yéen ci kitaabu tawxid di jël xadiisu anas radiallahu anhu wa ardaahu marfuan mu ne attiyaratu sirkun attiyaratu sirkun وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود xadis bi ñuy jël tey mooy xadis ibnu Mas'ud ba tey rek xadis baa ngi ci jàngale yenn xew-xew yoo xam ne nit ñi dañ koy def waaye ci diine lislaam bokkaale la mooy loolu ñu naan gaaflu walla picclu bii ñu ngi koy doog a jël maanaam buntu bi ay xadis yu bari la xadis bi ba tey rek mi ngi ci jàngale ci yi nga xam ne ci dund gi la ko doomu aadama aadama yi boole tey ku seetlu tuuti yéen ñi dëkk booru Canada wala ngeen fay jaar ku fa seetlu tuuti rek tey benn seetlu bu ndaw ci Carrefour bi mana tey liñ fa toj ëpp na deux cent nen ba ci ngoon gi sax ay nit ñoo mujj a jël suuf ndax foofu ni mu ñàngee ndax nen yi ñu fa toj ay nit ñoo jël suuf benn waaye moo jël siwo tibb suuf di ci këpp ndax yëf yi làqu na depuis suba la ci guddi gi lañ ko def lañ ñëw rek xam naa waa ji moom ay palaatu nen yu bari la jël rek écrasé ko ci carrefour bi ba kenn xàmmeetu ko yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne mbokk yi diine daf koo dàq bokkaale la gis nga moo tax bokk na ci hadis bi yonent mu ne hadis nag bis boo ko jàngee ñu ne marfu dafa am hadis bu am ñaar mawfu am mawquuf suñ ne marfu mooy hadis bi am na at tey yëkkati nañ ko ba yonent bi moo ko wax suñ ne mawquuf ci saxaaba bi ko nettali moom la yem dégg nga li ma wax suñ ne mawquuf suñ ne woon an ibnu mas'ud mawquufan kon li muy tekk mooy hadis bi dañ koy yemale ci ibnu mas'ud suñ nee marfo nag mooy yëkkati nañ ko ci yonent bi maanaam kon léegi wér na ne yonent bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy mawquuf ak marfo yonent bi nee na attiyaratu sirkun picc lu bokkaale la mu wax ko ñaata yoon wax ko ñaari yoon képp koo xam ne yaa ngi picc lu di jënd ay picc di ko jënd di ko wërale sa bopp wala nga ciy tufli naan da nga ciy ñaan sa aajo wala nga jël picc mi sànni ko bu jaaree ndeyjoor nga ni baax na bu jaaree càmmoñ nga ni baaxul képp kuy def loolu yonent bi nee na yow bokkaalekat nga te am nga lu doy waar ci hadis bi mu ne wama minna illaa amul kenn ci ñun ludul maanaam sa xol mbir yooyu yenn saa yi mu dikke ko nga am ay rëngi rëngi waaye walakin allaha yuzhibuhu bi tawakkul gis nga loolu sa xol di tiit wala loolu sa xol di ragal wala loolu ngay xalaat wala loolu nga naan naa moytu soo defee tawakkul alallah tawakkul bi dindi loolu kon kañ la nit di tiit lu dul yàlla soo amul tawakkul alallah lu tax nit di tiit ubbi sa bunt rek fekk ay neen nga tiit amoo tawakkul alallah am na góor goo xam ne julli nañ ak moom léegi timis fii bi muy entraînement di doxantu dem géej mu romb palaatu nen ak guro bu bëri mu jël nen yi rek am ku daw ki ko doon gis muy kooku daw ne ko "Ah, ah, ah." mu taxaw kooku ne ko yow xanaa gan nga fi mu ne ko lan la woon mu ne ko nen yi nag mu ne ko dama ko soxla mu ne ko déet pour ko pour ko jege pour ko jege góor gi daal di raatale nen yi def ko ci mbuusam egg si këram daal di ne waa kër gi man de nen yi damaa dem géej fekk ko fa rek waa kër gi daw moom mu daal di jubal ci waañ bi di ut diwlinam ut palaatam nee na nen yi daal ndékki na ci ay fan yu yu kii buré gi mu raxas ba mu set def ci pot bis mu nekk mu jël bu ndekkee ba pare jël benn te léegi daanaka léegi moom téeméeri at boobu ba léegi waaye loolu mooy tawakkulu ala allah est ce que nit ñi yegg nañ foofu léegi nag loo mën a yéene ne illa wa ma minna illa awul kenn ci lu dul xolam wala xelam yenn saa yi lu mu am yenn saa yi sax nga gis ci ñi nga xam ne dañ ne dañuy góorgóor dund sunna yenn saa yi nga gis ci am ko am loxo bu metti rek loxo bi xaw na yàgg tuuti rek nga gis sama waaye mu daal di takk benn wuñ gu weex wuñ gu xonq xaw a wàcce loxom bopp bi nekk di ko nëbb mooy wa ma minna illa yenn saa yi nga gis ko ci baat bi wala yenn saa yi mu ne ah man vraiment xam naa ne mais xam nga rek waa kër gi ñoo ma ko takkal xam nga maire bi léegi day gis doomu ahlu sunna bu ndaw liir ñu takkal koy affaire soo waxee mu ne la sama maam wala maamam wala yaayam mais loolu loolu musiba la ab jullit du takk gàllaaj loolu dafa leer nañ yooyu ngay tiit ci sa njaboot wala nga koy tiit ci sa bopp walakin allah yuzhibuhu bi tawakkul wallahi boo amee tawakkul ala allah yàlla dindi ko mais nag loolu moo jafe alquran moo nañu waman yatawakkal ala allah fa huwa hasbu wa ala allahi falyatawakkalu in kuntum mumin damay ni charte ci yàlla rek ngeen di wàkkiirlu su fekkente ne gëm ngeen yàlla hasbuna allah wa ni'mal wakil lu muy doy lu muy tekki hasbi allah wa ni'mal wakil lu muy tekki ab julit na ko yàlla doy ay picc ak ay xarak ay fasak ay galanak ay bantak amul lu muy jëriñ ab jullit jullit dafa war a gëm ne njëriñ ak lor ci yàlla lay bàyyeekoo du bàyyeekoo ci sàmm du bàyyeekoo ci ma demb tukulóor dañuy wax ne sa tawi allah du ina nafa moo taa koy xóore joomum béjjén bu doon jëriñ du jóge ci bopp borom kon picc mi mënul dara picc bi amul lu mu la mën a indil amul lu mu la mën a defal lu mu la mën a dàqal picc bi mun laa indil njëriñ mun laa indil lor hadis bi mbokk yi abu daawuda moo ko solo su ñëwee ci maanaa hadis bi mu ne wa haza sarix fi tahrimi tayiratu nee na lii moom wax ju leer la joo xam ne picculu dafa araam yemul ci araam waaye wa annaha min ashirk dafa bokk ci bokkaale te bokkaale ku mu mën a doon ci ñun war nga kaa mooy te ndiku lan moo war a tax ñu war a moytu bokkaale soo ko dewaale yàlla du la baal inna allah la yaxfiru an yushraka bihi yàlla du baale ko bokkaale innahu man yushrik billah faqad xarama allahu alayhi aljanna bokkaale dafa garaaw hadis moo ko wax laaj nañ yonente bi salallahu alayhi wa sallam ayu zanbin azam qaala an tajcala lillahi niddan wa huwa xalaqak yonente bi ban bàkkaar moo gën a rëy mu ne nga utal yàlla ndend te xam nga ne yàlla la bind laaj naa ko vendredi gars yi juma vendredi bi passé man leen xam ngeen lu tax bokkaale garaaw kenn ci ñun fii ñan ñoo fi kan moo fi am soxna am nga soxna am nga soxna ok am nga soxna yow am nga boo ñibbi woon léegi-léegi bi nga jullee gee ba pare nga ñëw fekk benn ponkal ci sa kawlal mu toog ñu jox ko sa reer nga wax sa soxna kii mooy kan mu ne la kii moo aye tey fekk bi ngay ñëw indaale woon bi ngay jógee ci jumaa yaa ngi waroon douze coups ci sa sa poos nooy def bi la soxna si ne kii mooy tey da ngay reetaan ah da ngay reetaan da ngay toog di ree rek da ngay toog ci saal bi di ree nooy def da nga koy rey ah gis nga lu tax nga koy rey lu mu la def lu la soxna si def ah def laa bokkaale keneen loolu metti la ba nga dóor waa ji bal dóor soxna si bal léegi yow ngay dendale yàlla te bëgg ko la ko def nga koy def keneen nga koy def sa borom wala misaal boobu jegewul sa soxna rek sa doom sax nañ bàyyi soxna si nañ ñëw ci doom yi sa doom rek boo ko yónni woon léegi ci bitig yónnal ma nangam mu génn beneen paa ne ko eh bàyyi sa papa lu mu la yónni demal mu yónni la mu ñëw nga ne ko yow foo demoon mu ne bi ma génnee paa diw moo ne naa bàyyi li nga ma yónni léegi moom ma dem fi fi fi mu ma yónni moom xale boobu loo koy def bu la jegee ah ah waaw lu tax parce que daf laa booleeg beneen paa léegi yow ngay booleeg sa borom yow bëggul ku la ko def nga koy def yàlla moo tax yonente bi ne ana wal insi wal jinn fii nabain azim ëllëg man ak nit yi ak ginne yi ñu ngi ci tribunal bu rëy yonente bi dafa ne yàlla tribunal boobu lu ko waral yàlla mu ne axluqu wa yobadu xayri man yàlla ma bind leen ñu jaamu keneen xool yàlla ni bind nit bi yàlla di bind nit ku ko fekkee kan moo dimbali yàlla kan moo nekkoon ci biir bi di dimbali yàlla bi yàlla defar nit ci biiru yaayam kan moo doon dimbali kan moo kan bi judd jotee bi nooyi jotee bi dund ju bi jotee kan moo la màggal dafa am benn waay bu ñëw di yëkkati say tànk ah waaw yàlla defal la lépp amoo loo koy fay nga koy boole keneen lekk ba suur nga ni keneen jërëjëf wala diw moo niinal ceeb bi ñàkk jom weesuwu loolu ceeb bi ku ko niinal kii indi ceeb bi kay indi gerte gi ah koo kay moo ko niinal ki la may moyen nga mun ko jënd ki la may nga lekk mu rees kii kay moo tal nga tax niin na kon nanu delloo yàlla mbir yi bokkaale baaxul moo tax mu ne mbir yi bokkaale yàlla tabaraka wa taala la lima fihi min taalluqi alqalb li gayrillaahi ala gayrillaahi taala ndax da ngay jël sa xol boo boo tàmmee di jël picc di ñaan di sànni picc mi di la orienté su yàggee lu mu lay jural mooy sa xel dootul nekk ci yàlla loolu moo tax gàllaaj garaaw képp koo gis muy takk gàllaaj xelam du nekk ci yàlla mukk abadan xelam ci gàllaaj yi dong dong lay nekk waaw du xëy te takkul seerewu ko ba mu ne këj ci loxo ndeyjoor ci loxo càmmoñ ci tànk yi ci loxo yi ci ndigg li du xëy te sanguwul du xëy te naanul bala muy génn fag mu contrôler boppam jox ma sama gàllaaj yi yow jox ma bi nga ko joxee mu takk su duggoon ci oto dem tuuti cinq minutes wala 20 mètres mu xool takkul day def demi tour bu fekkee oto bi moom moo ko moom yenn saa sax nga gis koo xam ne dina ko jaral mu wàcc benn waay kilifa la ndeysaan ci roi bu doyen la nekkoon ci chef yi daf ma mës a wax keroog bi may tekki sama gàllaaj yi laa xam ne du ma woon jullit parce que xutba nañ benn xutba ci wàllu gàllaaj bi ñu paree mu ne ma dama la soxla ma taxaw mu ne ma fi ma gis nii ma ne ko waaw mu ne ma dama doon takk gàllaaj ba ne këj mu ne mais waaye benn bis dama xëy tardé dugg ci oto bi daw ba ci yàgg rek ma xool rek gisuma sama gàllaaj yi rek mu ne ma def demi tour maa yor oto bi mu ne oto baa ngi dellusiwaat ci kër gi mais maa ngi sama sama xel mu ngi ma naan mais yow yow ana yàlla mais gàllaaj yi nga fàttaliku rek tourné yow léegi ana yàlla mu ne mu dem ba ci buntu kër gi mu taxaw koor ne soxna si génn mu ne ko sama ga sama téere yi dama ko fàtte soxna si dugaat ci biir mu ne mu daal xelam ne ko daal man daal ko duma gëwuma yàlla ndek mu ne mu xaarul soxna si mu daal defaat demi tour daal di xëy sans gàllaaj mu ne boobu laa araamal gàllaaj gàllaaj tegatul sama yaram ci aj màkk bi passé beneen waaye nee na ma bi may waaj a aji dama dajale sama gàllaaj yépp toog mu ne fi ma gis nii damaa bëri woon gàllaaj am na yoo xam ne ci sama ron la la nekk yii dama ko wékk mu ne damay takk ba fees doog a génn mu ne waaye bi ma bi may bi ma amee bii màkk te ma dégg gàllaaj ju dem màkk mu ne waaw gàllaaj gars yi nee nañ gàllaaj ju dem màkk su ma demee moom aéroport dañ koy nangu jidd te buñ ko nangoo dañ koy sànni ci mbali fi mu nekk nii ñëpp ñi ngeen gis fi ñu takk ay gàllaaj dañ koy nëbb waaw koy nëbb de ba wàcceeg moom bu ñu koy gis di ko dindi di ko nangu te bu ñu ko nangoo ci mbalit lañ koy def kon ngay xam ne du dara du tus ñu ko am ñëpp dañ koy nëbb waaw dañ koy nëbb te booy armali da nga koy tekki kon nga xam nga ne du dëgg sooy armal lu dul montre wala verre wala jaaro baaraam lii ngay mooy des sa yaram leneen lépp da nga koy tekki doo sol mbubu doo sol tubéy dangay woddoo benn sër taraxlaayoo beneen bi ci kaw su fekkoon ne kay gàllaaj bi dëgg la waxtu yooyu ngay armal di tawaaf di dem safa ak marwa des ak sak armal ana gàllaaj yi foofu ku la garde waaw beneen bi mooy liir bi bi mu nekkee ci biiru yaayam ban gàllaaj la takkoon foofu kay moo gën a garaaw ñun ñii ñëpp suñu biiru yaay lañ nekkoon wala ban gàllaaj lañ takkoon bi nekkee suñu biiru yaay ban gàllaaj la lan lañ ñu takkaloon pour ñu génn dundee lan la ñu naanal foofu yàlla moo nu doon sàmm yàlla moom doon sàmm liir bi ci biiru yaayam ci ñetti lëndëm ba liir bi génn yàlla moom mënu ko sàmm mu continuer aha kay moo tax yenn yi doomu aadama di def day tax seen xel dootul nekk ci yàlla te lépp loo xam ne day tax sa xel dootul nekk ci yàlla loolu bokkaale la qaala ibnu hamdan tukrahu tiyaratu kenn ci borom xam-xam nee nañ nee na affaire picc lu moom lu ñu sib la ñenn ñi daal di koy tontu ne loolu koy nekkul lu ñu sib ndax lu ñu sib moom du bokk ci lu araam te lii dafa araam dañ ko araam complètement lu tax mu ne li annaha shirkun ndax loolu kat bokkaale wa kayfa yakunu shirku makruhan bokkaale nu ñu nekkee lu ñu sib lépp loo xam ne day freiné sa xel ak sa xol ba dëgg-dëgg nu mu war a ajoo ci yàlla da koy baare loolu bokkaale yàlla loolu tax xol ak xel yàllaa ko moom waroo cee jox waroo cee dugal kenn ku dul yàlla li yàlla moom moom rek moo ko moom de keneen moom sa xol bi boo ci dugalee keneen rek yàlla daal lay bàyyi xol bi yàlla génn ci sayf ba mu set wicc bàyyi laa kooku ba mu xool ndax kooku am na lum la munal moo tax gis nga défi bi gën a rëy yàlla lancé ko ci sukuraat la fa lawla iza balagat alxulquuma wa antum hiina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsir yàlla nee na seen waaj yi bi muy waaj a dee ma xëcc ruu gi ba ci buli gi mu xurxuri nee na yéen yéen a ngi ko xool waaj xam ngeen ne day dee lu taxoon ngeen jàpp ci ne ngeen ne du dee ñëw leen daf leen ngeen woo ku ngeen yaakaar na ñëw acca bu mu dee wantum yéen a isin tanzurun yéen a ngi koy xool acca kaay leen ku ngeen yaakaar rek daf leen ngeen woo ko mu téy kii mu ne du dee ñu dem wooy sëriñ bi mu jàng ayatul kursi yi falaq ak naasi tufli yàlla mu ne ko dara kii tëdd fii wa zanna annahu lfiraq wóor na ko ne day dee ñëwee docteur bi sëriñ bi mënul ñu ne nañ ko yóbbu bu hôpital ñu gaaw jël taxi dugal ko ñu yegg si docteur yi takk ay masque ah indi lépp ndeysaan Cheikh Abdul Hamid Kiski dafay nettali saabu Iran bi muy faatu ñu ngi ko dugal ci benn hôpital bi nga xam ne ci hôpital yi gën a sophistiqué ci hôpitalu àdduna bi ñu tegal ko ay ay mas masque bii day dugal deret bu bees bii di génne deret bu dee yii dañ koy sol ndox yii indil ko oxygène hôpital bi ci biir armée de terre ñoo koy garder ci côté yi armée de mer ndax lan ndax président bu garaaw loon la mu nekkoon Iran moo jaayoon Iran américain yi kër gi bu dëkkoon ci Iran rek moo ëpp géejawaay robinet yi or la woon ak lal yi te kër gi ñetti nit a ci dëkk moom ak jawaram ak yaayam kër gi musée la léegi Iran kudd yi or la kudd yi mi doon lekkee ak palaat yi waaye bi ko dee dikkale cheikh bi nee na arsalal maliku malakan li yaxuza ruuhul malik mu ne famanil malik arsalal maliku malakan li yaxuza ruuhul malik ñett lay bokkul de arsalal maliku mooy kan malakan malaika li yaaxusa ruhul malik mu ne famanil malik yàlla anamu tey mu ngi ci biir bàmmeelam tëdd kon kay nit ñi war nañu xëy ragal yàlla képp koo fi dégg ci àdduna bi ñu koy jay di ko wax loo xamante ne moomu ko yàllaa ko moom déglu ko rek ñetti fan ñeenti fan juróomi fan ñu ne la dee na àdduna bi continuer moom waa ji montre bu mu takkoon sax du taxaw dañuy tekki montre bi keneen takk nga xam nga ne du yàlla beneen bi mooy lan la la mënaloon yow lan dee na tey kon su nuy gëm nan gëm yàlla bu nuy wóolu nan wóolu yàlla bu nuy yaakaar nan yaakaar yàlla su nuy ragal nanu ragal yàlla yii nii mooy tax nit am tawxiid bu fekkente ne am na benn boo ci jox doomu aadama wala nga jox ko leneen yëgal na yow sa pas-pas wérut waaw nit du ragal ku dul yàlla du tiit ku dul yàlla mbokk jullit yi fi sarhi sunan wa innama jucila altiratu min alshirki li annahum kanu yactaqiduuna anna altiratu tajlibu lahum nafaan aw tadfau lahum aw tadfau anhum darran ne lan moo tax ci téere boobu tudd sarxu sunan boroom xam-xam yi daal di fay jàngale ne picc lu dafa araam lu tax mu nekk bokkaale ndax nit ñi dañoo gëm ne picc lu da leen di indil njëriñ da leen di dàqal lor maadaama dañoo gëm ne da leen di indil njëriñ da leen di dàqal lor loolu bokkaale la ndax lor ak njëriñ ci yàlla lay bàyyee ko yàllaa ko moom doomu aadama moomu ko isa alimu bi mawjubihi nit su xamee ne lor ak njëriñ ci yàlla lay bàyyee ko kon nu mu koy joxee keneen lizalika fa ka annahum ashraku ma allahi taala mu ne looloo tax ba ñu yaakaaree ne am na keneen ku leen di jëriñ wala mu leen di lor rek loolu mooy waral ne ñoom bokkaale nañu ak yàlla mu ne wax ji mu wax ne wa ma minna illa ci hadis bi mu ne illa waqaa fi qalbihi shay'un min zalik léeg-léeg doomu aadama wakkiirlu ci yàlla wakkiirlu ci yàlla wakkiirlu ci yàlla feebaram métti wala ay jafe-jafeem tar yàlla teg ko ay nattu àdduna mu wakkiirlu wakkiirlu wakkiirlu wakkiirlu wakkiirlu ba ci yàgg rek seytaane daal di ñëw ne ko ah pourtant day affaire bi mun nga ko def rek garaaw yàlla xam na ne yow gëm nga ko laalal rek takkal rek wala essayel rek seytaane yóbbu na la manaa wakkiirlu amul sonn jàngeen histoire nabillah ayub amul feebar bu mu feebarul waf avant feebar doom yi alal ji jabar yi ñi ko doon liggéeyal ba loolu jeexee takk seytaane attaqué yaram bi feebar mu muñ muñ muñ muñ muñ ba nee nañ sax yi bi ñu attaqué xol bi nag dane onk yàlla mu ne ah lan la da ngay saalit mu ne déedéet xol bi laay bañ ñu laal ndax xol bi moo des place buy tudd yàlla te buñ ko laalee dootuma mën a tudd yàlla moo la ñu tudde ko ayub as-sabir nit wakkiirlu kenn du ne muñ naa ba sonn kuy muñ kuy wakkiirlu ci yàlla amul temps amul coono ndax yàlla moo fi nekk yàllaa ngi fi yàlla du fi jóge maadaama allahu subhanahu wa taala du fi jóge kon kay yow jaru ngay sonn wàkkirul ci moom rek feebar bi lu mu métti métti xamal ne ñaar rek nga ciy jële mu wér yàlla baal la say bàkkaar wala nga dee ak moom yàlla def ko mu nekk tawfiq nga dugg aljanna loolu moo tax yonent bi bu nit feebaroon su la seetee lu muy wax la baasa tahuur insha allah du dara yàllaa lay fóot yàllaa lay fóot bàkkaar yi la yàlla di dindi bàkkaar yi bu ko feebar bi munta dindi ndax bëri soo duggee bàmmeel ñu mbugal la ci su fekkee ne bàkkaar yi dafa bëri ba feebar mënulu ci dara natt mënu ci dara feebar mënu ci dara bàmmeel mënu ci dara nga dekkeek moom fa nga dugg safara moo tax baaxul loo tax kon ñu war a wàkkirlu ci yàlla tabaraka wa taala bañ a naagu ba ñu découragé lépp loo xam ne dafay ñëw ci sunu xel di tax sunu tawakkulu alallah di wàññeeku nanu ko sori mbokk jullit yi walakin allaha yuzhibuhu bi tawakkul ay lakin lamma tawakkalna ala allahi fi jalbi nafci aw iddar azhaba allahu anna bi tawakkulina alayhi wahdahu keroog ba ñu amee confiance ndeysaan fàttaliku leen Moussa de Moussa bi ko Firawna toppee ci géej googu ñu naan mer rouge Firawna sës ko ci géej gi Moussa ak ñi mu àndaloon gars yi daal di tiit yàlla moo nuy nettali gars yi ba ñu tiitee lan lan doon wax inna la mudrakuun ñu ne danañ ñu dab danañ ñu rey comme Moussa dafa am tawakkul alallah lan la wax inna ma'i rabbi yàllaa ngi ànd ak man tiitu loola inna ma'i rabbi allahu akbar imagine lu toll ne palais waa ji génn ñëpp topp ko armée bi yëpp ko topp amul lu des de Firawna bu mu génnee armée bi la génnee ñëpp te seeni arme lan yor ndax lan parce que peuple Moussa banu Israël ba ñu génnee ñoom ñëpp génn picc desatul biir Égypte moo tax Firaaw na génne armée moom ak lépp ak lu mu am yàlla dana woon Moussa génnal Moussa ne yàlla bu ma génnee Firaaw na daf may topp mu ne ko bu la toppee ma topp ko Firaaw na Moussa génn Firaaw na topp ko yàlla topp ci ban demee ba sës Moussa amatul fu mu jëm parce que géej moo fi nekk mu gestu ci ginnaaw Firawna mu ngi ñëw amul dem feneen ñaari place yi rek moo fi nekk su demee ci ginnaaw Firawna rey ko su duggee ci géej gi lab dee Moussa jël yàlla mu ne ko jëlal yat wi dóor ko ci géej gi fadrib bi asaaka albahra jëlal sa yat dóoral géej gi Moussa daal di jël yat bi dóor géej gi géej gi daal di ubbeeku yàlla mu ne banu Israël traversé leen mais foofu su Moussa amul woon tawakkul ala Allah lu muy def parce que gis ngeen nit ñi mu àndaloon amuñu woon tawakkul ñooñu moom ñu ngi wax ñu ngi wax tey la ñuy dee way tey ñu dee tey ñu dee am na ñoo xam ne sax ñoo nit ñi moom ne ko yow bi nga xamee lii la munoo dara loo ñu indee fii suñu avancé lépp bu ñu arrière firaaw na rey nu demi ngi nii di ñëw Moussa ne leen tey leen inna ma'i rabbi gis ngeen de maa ngi ànd ak sama borom allahu akbar mooy tawakkul ala allah wax boobu Moussa waxoon loolu la loolu la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax keroog ci xaaru Hira bi Aboubacar tiitee lan la ko yonenti ba inna allaha maana te boobu yonenti bi nee na gars yi bu ñu xooloon suufu xeer bi rek so soo fa demee ni sayrat day daw day xam ne yàlla moo ko nëbb mais du leneen soo fa demee nii ba taxaw nii xool ko da ngay xam ne lii mbiru yàlla la doo mbirum doomu aadama inna maana rabbuna yàlla mi ngi ànd ak ñun inna allaha maana yàlla mi ngi ànd ak ñun loolu ko yàlla wax loolu mooy loo xam ne doomu aadama daf ko war a gëm bañ a wékku ci ay takk ak ay gàllaaj ak ay xarfa fuufaak ay sàmbaak ay dembaak yooyu feeg yaa ngi ci sa ngëm yàlla day des te loolu moo ñu tardeel tey réew mi dafa nekk réew moo xam ne li ñu gëm ci gàllaaj li ñuy financé ci gàllaaj daanaka budget la waaw budget billaahi Sénégal li ñuy financé ci gàllaaj non sa yaram day daw fii réew mi dañu ne quatre-vingt-quinze pour cent mais gis ngeen quatre-vingt-quinze pour cent yooyu genn wàll gi yëpp ay gàllaaj lañ gëm ba ci kilifa diine yi genn wàll gi ci ñoom ñëpp ay gàllaaj lañ gëm loolu baaxul jullit yàlla la war a gëm subhaanahu wa taala sunu borom moo tax mu ne yàlla subhaanahu wa taala bu nu wàkkiirloo ci moom lamma tawakkal naa alallah bu nu wàkkiirloo ci yàlla ci sàkku ci moom njëriñ di muslu ci moom lor azhaballahu anna yàlla dina yóbbu ci ñun dina génne ci ñun bi tawakkulina alayhi wahdahu lépp lu nuy ragal yàlla dana nu ko dàqal lépp lu nuy tiit yàlla dina ko soril jàngeen yonent bi muy nelaw benn waay ñëw daal di ko ne pëkk pëkk daal di koy yee ne ko man yamna'uka minni tey ku la mën a musal yonent bi ne ko allah waa ji daal di tiit tremble jaas ji rot yonent bi ne cas jaas yi ne ko man yamna'uka minni mu ne ko jéggal ma yonent bi ne ko demal fi mu ko ne man yam na ko amin ne bi ko yonent bi naan allah rek benn la loolu mooy tawakkul ala allah amul déngi-déngi yàlla rek benn góor ndeysaan doomam dafa damm te yorul deux mille francs mu jële ko taxi mu dem fan daan teg ñu ne ko ah loo yore mu ne yor mu dara ñu ne ko kii rek kenn mënu koo faj fii mu ne léegi nag ñu ne demal principal ku ñu bañ a jël faan ñu ne la demal principal mu ne du ngeen ma ko fajal gars yi def faj ah loo yor ku nekk romb ko mu ne ñii romb ko gauche ñii romb ko droite bàyyi ko mu taxaw xale bi tànk baa ngi di di dem mu ne mu xool xale ba caag rek mu ne leen fawqa kullu qudratin qudratullah mu ne ma wax leen baat boobu rek won leen ginnaaw fawqa kullu qudratin qudratullah mu ne mu mu génn mu gis malade bu ñu rejeté comme moom mu ngi jël oto jëm principal mu ne ko sëñ bi foo ñëw mu ne principal mu ne doo ma yóbbaale mu ne yëgal góor gi nee na mu yëg ci ginnaaw mu ne dafa yegg principal rek mu exit teg ko urgence mu fekk fa benn jigéen expliqué ko non su ne ko amul benn problème dugal man dinaa ko jël en charge daal koy faj bu ñu la laajee rek waxal sama doom la yooyu maamam nga dafa wàccoon di football rek dam nga dem waaw dama nga toog soxna soosu moo jël xale bi faj ko ba xale bi léegi grand la mu ngi doxi soxlaam soxna soosu tamit xoolal problème am dafa bëggoon doom mënul am doom am na xaalis dem na France faju dem na Angleterre dem na États-Unis mënul am doom bi mu jëlalee góor gi doomam boobu en charge ba ñu faj xale bi ba xale bi commencé di génn urgence nekk ci saal yi góor gi di ñaanal soxna si mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma am doom parce que musuma am doom góor gi ko góor gi daal di koy ñaanal soxna si am na doom gis nga yàlla ñun ba ñu amulee yaqiin ci yàlla la suñu problème yépp am waaye bu nu dindi woon gàllankoor yu dox suñu digganteeg suñu borom ñu sudosee ñu koy ñaan suñu rukkowee ñu koy màggal bu ñu jàqee yëkkati suñuy loxo jëm ci moom kon yàlla di ñu régleel suñuy jafe-jafe walla yàlla dina tàggat jaam yi jaam yi di régler suñuy problème parce que yàlla moom moom jaam yi lenn waaye day nelaw mu gént demal kër diw nga jox ko lu mu dundee mu yeewu daal di jël ration bu mat def ci ginnaaw otoom taal oto bi ba ci kër googu mu sone fëgg kër gi borom kër gi ubbi mu ne ko li ci oto bi yaa ko ginnaaw oto bi yëpp jël ko waa ji daal di wàcce saaku yi wàcce lépp ba mu jeex mu daal di jël moom carte visite am mu ne waa ji am su jeexee nga waan ma téléphone waa ji ne ko non non ci yóbbu yóbbu ko mu ne ko non teel carte bi numéro téléphone moo ci nekk pour bu jeexee mu ne ko du ma ko jël un aw ma téléphone deux kan moo la wax nga indi lii mu ne bu jeexee ci kooku laay démarrer rek déggu leen wax bi de ah ma ne ko lag naka la fi yàlla di nekkee man ma lay woo di la ñaan yow man dinaa fi gis yàlla di la ñaan yaa ngi nii da nga doon nelaw yàlla moo la yee ne la dama nga yóbbu fii kon kay man yàlla mu ngi fi kon aw ma aw ma allahu akbar keneen ki ku jigéen la jëkkëram gaañu bàyyi ko benn xale bu ndaw xale bi feebar feebar bu doy waar feebar bu métti ndaw si amul fu mu yóbbu xale bi mu teg xale bi di julli di sukkoo di ñaan yàlla di sujjóot guddi gi yëpp xel waaj ndaw si mu ngi julli di ñaan yàlla dafa jékki-jékki rek ñu fëgg buntu kër gi moo bi gis ku sol blouse weex sol cartable ne ko ana ana xale bi mu ne ko mu ngi nii tëdd waa ji daal di ñëw commencé xool xale bi faj faj faj génne ay garab jox ko lépp def na fa deux heures de temps ak xale bi ba mu pare mu ne maa ngi dem après su xale bi amaatee problème rek bu piqué waatee crise rek woo ma ci numéro bi nga ma wooyoo woon ndaw si ne ko ban numéro woowu ma la de gis ni kër gaa ngi amul courant waxuma la ak téléphone nga naan ma numéro mu ne ko lan ñu woo ma fii ak sa kër mu ngi nii man dama ñëw mu ne ma ne man woowuma la kër gaa ngi nii amul courant waxuma la ak téléphone yow gis nga situation bi ñu nekkee rek kër gaa ngi teg saak bi ni ko mais man sama portable ngi dañ maa woo ne ma naa ñëw faj xale bi mu naa waaye xëy na yàlla moo la woo man woowuma la parce que maa ngi doon ñaan yàlla nag allah ma ñun ñaan lañ gëmu gëmuñu ñaan ñun bala ñuy ñaan ngay dem lijjanti ba affaire yi kàcc nga xaw ma ñaar julli ñaar ràkk loolu nga koy def nga doon amoo yaqin ci yàlla yàlla du la nangul udu llaha wa antum muqinuun bil ijaba ngeen di woo yàlla ngeen am confiance am kóolute ne yàlla da koy dégg te da koy nangu wantu muuqinuun fa la yoon di wax ngeen gëm li ngeen di def ñaan goo xam ne bi nga koy def sax yaa ngi yaakamti di jaxase xarf yi naka la ko yàlla di nangoo suñ problème yëpp loolu la mbokk yi ixwatal iman mu ne wa jaala axirahu min qawli ibnu masud ki doon firi xadis bi nee na genn wàllu xadis bi li ci fin bi loolu moom waxu ibnu masud la beneen xadis bi ci tegu muy xadisu ahmad min xadisu ibnu amr mu ne man raddatu atiratu an xaajatihi faqad ashrak قالوا وما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله خيرك أليس باب موجتكم من كيف كو خمني أي آجوم موت نكتش ba aajo yi tax mu dellu di piccilu faqat ashraka kooku bokkaayeen maanaam ay aajo aajo yi tëx rek lew man raddatu atiratu an hajatihi faqat ashraka aajo yi tëx rek lew ba nga yaakaar ni ñu ne la ah ñun de wax dëgg yàlla lii la fi maam bàyyi woon loolu la gaa yi ne ah ñun de yi liñ ci la maam bàyyi woon ñun kon de maam li mu fi bàyyi baaxul ñun de ñu ngi fi la fi bàyyi bàyyi woon ñun de lañ ñu ngi fi la ci mag ñi bàyyi woon ñun ñu de ci mag ñi rek yooyu lañ lay wax bokkaale yàlla la fi mag ñi bàyyi kon mag ñi liñ nekkoon baaxul su fekkee mag ñi bokkaale lañ fi nekkee woon lu yonent bi tere ñu ne la mag ñi ci lañ nekkoon kon loolu musiba la ak a neexoon chaque jour ñuy wax mag ñi ñu xam baat yi adressé mag ñi lan lañ lan la lan la léeg-léeg nga dégg ku ne waaw yéen da ngeen a contre mag ñi ndax li ngeen di wax ni mag ñi waxuñu ko woon seet leen ñun li ñuy wax ak mag ñi li ñu waxoon lan la seetal waa ji lim la wax ak li la mag ñi waxoon lan moo dëggu ci alquran ak sunna ndeysaan dama amoon ay góor yi ma doon encadré ci aj bi passé paa yi dama leen wax rek ñu weddi su ma wax dara dañuy weddi bu ñu demee ci terrain bi ñu ne ma ah oustaz oustaz lii la waxoon de ma ne waaw mais ñu ne mais ñun dañoo jaaxle man leen kaay leen wax leen gis ngeen Sénégal lu ngeen fay dégg genn wàll bi yëpp amul fii màkk bu ngeen ñëwee bi du ngeen ko fi gis léegi nag xool leen lan mooy dëgg waaw xool leen luy dëgg nag yu bëri yu ñu lay wax dara amu ci tey maa ngi koy nettali mbokk bi sànq dama demoon hôpitalu Thiaroye xam nga sama yaay accident bi mu def tànk bi ngeen ñaanal ko tey lañ ko doon opéré mi ngi foofu sax fa la fanaan maa ngi toog ni ci bàyyi ndeysaan parce que depuis suba fajar laa koy laa koy yóbbu bi ñu ko dugalee bloc ñu ne ma dama nga toog bu génnee dinañ la woo maa ngi toog ni di xaar mu génn ay maire a ngi waxtaan naan gis nga naar yi naara bon gis nga naar yi dañuy bañ ku ñuul laal kaaba gi boo ko laalee dañu ne la xaraam xaraam lay ak a ñoo bon ma ni sama sœur bi maa loon déglu déglu déglul waxtaan bi daal bi nag beneen maire bi naan gis nga man sama xaw ma lan dafa mënoon saaga bi muy dem maa ko ñu ne ko mbaa doo saaga mu ne ah maa ngi dem de mu ne mu dem ku ko jege rek mu daggal law saaga bëri ñu koy remal xoolal ñii li ñuy bàkkoo yow ngay saaga ba egg màkk di saaga ah mais kaaba gi dafa am place yoo xamante ne foofu dong lañu wax nit laal ko feneen foo laal lu dul loolu da ngay bokkaale yàlla comme yow jàngoo nag ñi jàng ñoom ñoo xam soo bëggee bokkaale ñu ne la xaraam léegi nag ñoom bu ñu la nee xaraam est-ce que dafa tekki ne ñoom dañoo bon dañ laa tere laal kaaba gi da ngay gis ku yegg si ci buntu kaaba gi naan nii man ren ren lu ma jaaxal ren lu ma gis mooy gis naa fa ndekki am na ñoo xam ne du ñu woon kaaba gi ginnaaw dañuy arrière bu ñuy génn di arrière arrière arrière arrière arrière arrière di arrière ba génn bi ma laajtee ñu ne ma ñii du ñu woon kaaba gi ginnaaw bi arrière laa woon man toog di gis di xool ay nit di arrière sama kanam ba génn ñenn ñi di raay ay poto ñii di raay ay bunt ñii di non loolu bokkaale la loolu du diine kaaba gi fi ñu ko war a laal mooy ruknul yamaani xajaratul aswad zaliq ñetti place yi lañ ko war a laal feneen amul te xajaratul aswad it su fekkee da ngaa bëgg a am problème taxawal kàbbar lañ la wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar nga dem yonent bi sallallahu dafa jàngale lépp mu simple yonent bi muy tawaaf yonent bi ñaata aj la mu saaj benn aj aj boobu yonent bi bi muy aj ci lan la war gëléem bi mu ñëwee ba tiim xajaratul aswad bant bi mu yor kaan bi la ci dugal loolu kay yonent bi yombal na la mais da ngay gis foofu ay nit yoo xam ne dañuy ne dañuy dee tey ñu laal xajaratul aswad moo tax da ngay fi soo ku ñu tànc ba mu dem àll ba waaw tànc la ba nga dem àll ba da nga ko fay gis wala koo xam ne dañ koy tànc ba yëreem yi simmeeku dum awraay yi ne bët ci biti nit daw daal lay sàng benn yëreem ci kaw gis nga lu ko waral muy ëppal diina ji amul ëppal te ëppalu nit ñi da nga koy gis fu nekk ni nga koy gisee fii ci wàllu jaamu yàlla noonu ngay demee ba màkk di ko gis ay nit di sànni seeni mbax na ci kaaba gi wala ñu fay sànni seen dàll wala di fa sànni seen yére gëm ne fii loo fi bàyyi di nga dellusiwaat dellusi ko da ngay ànd ak nit ba jaari nga gis mu tëmbal mbax neem fiw nga ne ko lii nag mu ne déwén dama koy jëlsi wala mu tëmbal ay dàllam doxa ndaa ku neen ñibbisi xoolal loolu wala mu simmi boobu ne ko taw ci biir lii nag ana séeré mu ne bàyyi naa ko fi ndax déwén dama ko bëgg a jël si xoola pas-pas yooyu ay mbir la yoo xam ne yal na nu yàlla dimbali yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal lu ñu topp ko léegi nag ci sunu dëkk bi nit ñi dañoo tàmm ku leen di tere bokkaale rek ñu dëkkal la ci lu bon waaw ñu ne yonent bi waaw léegi ku bokkaale nga bu ko tuub dindi ko nan ngay def fama kafaaratu lan la ñuy kafaara ba dindi bokkaale gi picc boobu ñu doon def lu ñu def ba dindi ko qaala mu ne an taquula na nga wax allahuma yow yàlla laa xayra yiw amul illaa xayruka lu dul sa yiw yàlla lu baax daal yow yaa ko moom ci yow la nekk yow yàlla maa ngi lay ñaan lu baax li jeex na waaye yow boo bàyyee lu baaxu yàlla nga da ngay dem ci keneen mu jox la mbaax te keneen kooku amul kon ñaan baa ngi noonu allahumma la xayra illa xayruk wala tuyaruk illa tuyaruk wala ilaha xayruk lii la yonent bi dindi indi lii la yonent bi jàngale ci képp koo xam ne dangaa bëgg a mucc ci mbir yooyu doomu aadama yi def te mooy di jël picc di ko sànni wala di ko wërale seen bopp wala di ko wërale seen yaram wala di ci ñaan seen aajo yonent bi ne képp ku ko def bëgg ko dindi rectifier tuub na nga ñaan ñaan bi yow yàlla laa xayra illa xayruk wala tiyarun illa tiyaruk wala ilaha xayruk kon yéen mbokk jullit yi bii mooy yaakaar naa dars ah des na yeneen ñaari hadis ah des na ñaar de benn moo fa nekk kon incha allah ñu yem fii ba talaata bi di ñëwaat ñu yeggali hadis bi des bi iznillah ñu jëlaale encore masail yi ci nekk asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah. bismillah.